rasulullah mbokk jullit yi asalaamaaleykum may leen seen nopp rek ma yónni leen samay kàddu lan ngeen jéem ko dégg maa ngi nuyu département Dagana yëpp fukki maire yi ak benn maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu seen conseil municipal di nuyu responsable yi nga xam ñooy Dagana coordinateur Abouli député Mama Mama Diop Khalifa Khalifa maa ngi lay nuyu kontaan bi wax sama gannaaw di nuyu ñëpp kuy wax président bi départemental loolu laa wax rek xam naa ni mais loolu rek tam yow yaa fa sa këri na zikra tan pour mu neen maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di mairie bu jàmm délégation bi xam ne mu ànd tey jóge jàmm te xam naa ni bu ngeen seetloo tey délégation yi fi ñëw yëpp jàmm moo gën sori jàmm presque cinq am cinq zones cinq zones yëpp ñëw nañu indi na ñaar fukki oto ak juróom ak ay góor ak ay jigéen ak ay xale ci xéet yu bokul am nay ay nar am nay ay peul am nay ay wolof am na ni sax sama jaamu séeréer kon ngi département Dagana di beral nuyoo sama xarit sama rakk ki nga xam ne defa ne waxtu buma démé buma gesso mom lay seen moy dembel jàmbaaru man seen yow ndax jamano safti janngo safti ɗiɗi sapante ɗumuyi jappande ba yeb mi mbeɗannoyo samay argent ndax ma jadda sam forum argent moustapha diak nekk imam nekk professeur ak abdou gaye bi nga xam ne sama rakk la riche si ci man ak conseil yi nga xam ne ànd naa ak ñoom yëpp di Dagana di nuyu mairie bu di beral dégg-dégg nuyoo Lamine Demba wax na ci man mais man bu ñu waxee ci yow rek wax nañ ci man te man bu ñu waxee ci man wax nañ ci yow. ñu wax nga rek yàlla dafa ne tey bu ñu commencé meeting bi am lu fi xew mais loolu mooy politique politique dafay am yëngu-yëngu pour xumbal mais tax na encore militaires ak pères yi ngir dëgër ba continuer def seen meeting am na ay góor yi nga xam ni. boobu dañu bëgg essence essence mooy mu yëngu ba dëgër pour décider pour wax ñoo ngi leen di wax ni suñuy fereer lañu maa ngi rafet rafetlu kaddu le représentant de ministère de la jeunesse bi wax ni bu ñu la falee yaa ngi nekkal parti bi nga nekk yaa ngi nekkal parti nga nekkul déglu naa loolu. beneen bi noo ngi lu liggéey monsieur président de la république son excellence Macky ndax dégg-dégg am na ay borom yi nga xam ne dañu jamante ak ñoom ñu xëccoo Sénégal mais xeexuñu woon xulóowuñu woon. ba mu demee ba mu jot réew moom xam ne moom ak ñoom ñoo ko bokk bu dem waxtaan ak ñoom ñu ñëw jàppale ko ñu ngi koy rafetlu. Pape Oumar Sarr sama turandoo sama xarit bu mu ñëwee tey man ak mu ñoo denn sama def la toog maa ngi wax ni waalo Oumar suñu Oumar la waalo président Macky suñu président la. waala Idriss Seck su ñu Seck suñu mbokk la waala ñun benn lañu kenn moomul Sénégal ni ñun ñoo koy bokk mais nàkku maa ngi wax nii ñi nga xam ni président moo leen dooleel man ñii ci laa bokk ci côté politique nag man nag xam ngeen ni comme ni ngeen xamee ni mairie du métier dañu am ay métier mais nag am na doole xam ni président moo ñu ko may ndax ñoo ngi ci ànd ak parta mu dimbali mu ci mu ngi dama cee tudd rek ay quelques personnes waxoon naa léegi Idriss woo na kaay ñu liggéey woo na Umar sar, kaay ñu liggéey mais jox na Mokhtar moyen mu ñëw jàppale ay nit ñi moo tax ñu ñi Mokhtar jàppale jàppal bi kenn xamul lu ñu tey waaw nag loolu mooy ànd nit bu lay dimbali am ñi xam ne bu duñ koy dimbali rek dimbali ñu kenn di ñu dimbali pour nga dimbali ñeneen ñi kon li gën a gàtt tax mooy département de Gana benn nit la benn bopp benn tànk kenn mënu da bay sa morom ngi nuyu Ibrahima Sow ñoo ngi nuyu Ibrahima Sow ñoo ngi nuyu wax jëmel ni ko am saas nga jaylaani gii ñu wala dox jaylaana jamlaana <laughs> kanamam bi ak ñi mu àndal képp ko ànd ñoom nga ñën maa ngi nuyu bay di baax di gërëm ci jox nañu xale yi jox nañu encore beneen cent hectares ak benn apport bu un million cinq cent ndax apport bu bu ñu ko amul du ñu bokk ci ñu xam lu war a financé mais tey ñoo ngi taxaw di nekk ci jàppale leen ci lépp nga xam ne bëgg nañu ko ndax président Macky Sall moo ñëw sant ñoo ngi nag biral président yi ni woo naa ko burki démb boo soxlee dañu ànd ak yow même boo soxla ñun dañu la soxla. waaw waaw nous sommes derrière président de la République nous sommes derrière Macky Sall. nu bu wëñu président lañ àndal mooy suñu leader moom la ñuy jàppale tey moom la ñuy jàppale suba. maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp xam nga léegi xam na guddi te maa ngi day gaaw a sant. di leen gërëm di leen sant wax ni à très bientôt incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi